Serigne Cheikh Mbacké mii def bis bi sant yàlla woo ci bokki jullit yeeg bokki taalib yi yëpp am na ci ndigal sëriñ bi sëriñ bi it ko ci Cheikh Mbacké di nit koo xamante ne bii ku bëgg lu baax la ab taalibi suñ tubaa ab jaamu suñ borom la kuy dimbali doomu aadama yi la loola nag di ay qualité yoo xamante ne bii mu ngi ci moom te dañu wax ne bu ne nit baax na dañu wax ne nañ leen ko laaj bokk ya yaakaar naa tey ku ñëw fii rek da xam ne Cheikh Mbacke mii bokkam yi nekk ci fépp ci goxu Sénégal ñëpp maase nañ ñëw ànd ci ak moom seeral ko ne Cheikh Mbacke ku bëgg mbokk la ku bëgg lu baax la ku dib taalibi Cheikhul Khadim la kon nag ñu ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba mi nga xam ne amuñu lu may moom darajay Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moo gën lu yàlla yónni képp koo xam ne ñëw na fi itte boo fi mën a indi ak aajo joo manaam a am yal na ko suñu borom saafara yàlla na fi teewit at yu bari lool ba kenn ku ne eggale sa yéene ji nga am ci liggéeyal yàlla ak liggéeyal Seexul Xadiim euh, sëriñ Cheikh daal lañ koy ñaanal mu yàgg koo def te wér te ñun ñëpp ñu ànd koog moom di eh, sant ba bokki taalibe yi yëpp ak bokk yi ak kilifa yu tedd yi nga xam ne it ñu ngi ci biir jotaay bi ñii di suñuy mbokk lu suñu lépp ñii di suñu doom ñii di suñu suñu suñu suñu suñuy suñuy rak bokki taalib yi xarit yi am di jàmm yëpp ndax dafa ma wax ne maanaam bis bi moom ku fi ñëw rek dafa mel ne mën nga fi ñëwal ndax Cheikh Mbacke man ak moom weesu nañ samedi ko juma ajjuma ko samedi waaye day mooy man mooy moom moo ku fi ñëw rek mën naa la ko mën naa la ko santal cant goo xamante ni bi ko dégg dana xam ne lii lu yellu la lu jaarlu la lu tegu ci yoon la Cheikh nag li nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala wax mooy dafa wax ne yow ma laa yanfa'u maalun wala banuun illaa man ataa Allaaha bi qalbin salim loolu ak sama borom defal nit kenn du ko nawe ak famille bu baax kon golo golo kenn du ko gën famille ndax golo bàyyi golo yaay golo waaye moo daq yàq ku jël aw da ngay daggu yàq jikko lañu lañ la ñu gën a nit moom lañ koy taggee Cheikh Mbacke mii nag loolu la sama borom defal jikko ju baax xalbun salim la ko sama borom defal te suñu borom dafa wax ne maanaam gën ci yéen mooy ki nga xam moom a gën a ragal xolam yàlla rek nekk ci kooku nag moom sama borom tabaaraka taala defal na ko lu mel noonu ki gën a jariñ nit ñi it mooy gën ki gën ci yàlla te Cheikh Mbacke loolu moo ko sama borom defal mboolem ñun ñëpp seer nañu ne maanaam Cheikh bu yoroon leen dong maanaam bu gisee ku am aajo da ko cay def féete ak boromam nag mel ne na suñu borom moom kenn du du bay saw saw laa saw laaj ba setal suñu borom moom di booyal ndax maa ngi dëkkum yan faddi maa ngi dëkkum maa ngi dëkkum maa yan faddu wa maa baax yi damay wax ne gars yi maanaam loolu li ma koy firee mooy du ma ko firee ne suñu borom la fa moom day jeex waaye la la ma koy firee man mooy la fa sans borom du yëngu laa koy firee man du yëngu ñun ñëpp buñ duyoon maanaam ba géejal ñu jëkk ñaa ngi ñu mu itam sans borom moom di bor boo xam ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem te la dara dara du ci yëngu kon nag ñu ngi ñaan suñu borom mi nga xam ne dara tëwu ko mu dolli jàmm dellu nu doon nu sutura doon nu nekk ñoo xam ne taalibi Cheikhul Khadim la ñu doon loo xam ne duñu bëgg lu may Serigne Touba duñu gis lu may Serigne Touba lu nu xam lu luy Cheikhul Khadim. nee na mi ngi jël nuyoo bi di ko teg ci li. loxo sunu waay jur. loxo sunu waay jur. Alaaji Madiane Niang mee toog. di seen waajur. di ko baax. ku fonk Cheikh. ku ko jàpp te jàppale ko. xam naa bi nee na xam na ci lu ko leer. nee na kon na ñaan yàlla yàggal ko fi bu baax a baax. ci barke Cheikhul Khadim. nee na mi ngi nuyu sëriñ Fallou Mbacke mii. ak njaboot gi ñu àndal. di leen masawu coona. di leen jaajëfal. ndax jotaayam fii. nee na ndax jataayam fii. rafet na fi lool. rafet na fi lool. allah. nee na mi ngi nuyu. suñu rakk suñu rakk. di doom ci sëriñ Saliou Touré mii. di doom ci sëriñ Saliou Touré nee na ñu ngi rafetlu jotaayam bu baax. ndax waajuram. ndax waajuram de. ak seen i waajur. ak seen i waajur. kenn rek lañu duñu ñaar. xëy na njaboot gi. nee na xëy na njaboot gi. nee na jombul xamante ndax jamono ju xat. waaye su Cheikh Mbacke mii tey bu taxawalee ne day sant yàlla. Cheikh Mbacke Thiam mii tey bu taxawalee ne day sant yàlla. fii ba ci tali ba kenn waru fi woon a xaj. nee na fii ba ca tali ba kenn waru fi woon a xaj. ndax lu fi fu dara ne rek. nee na ndax fu dara rek. yàllaa ko fa def yàllaa ko fa def. comme moom yàlla baaxee na ko. nee na comme moom yàlla baaxee na ko. may ko mu am yëg-yëgub. may ko mu am yëg-yëgub. baas. baas. tànt jël alalam. jël alalam. ànd ak bokkam. ànd ak i bokkam. ni dañuy sant yàlla. ni dañuy sant yàlla. nee na dara kawewu ko. lépp luñ ciy séntu rek. nee na lépp luñ ciy séntu. yàlla nañ ci gis lu kawe suñ yàlla nañ ci gis lu kawe suñ jor. amiin ci barke Serigne Xaasim amiin. ndax Cheikh Mbacke mii. ndax Cheikh Mbacke mii. comme ni nga ko doon wax léegi sama diggante ak moom. nee na li ma doon wax léegi digganteem ak moom. man jàppee ma ko taalibe dong ci kër nee na moom de jàppewu ko taalibe rek ci kër gi. sama mag la ci kër gi. nee na magam la ci kër gi. ndax nee na ndax bi ma gënee doon tuut tànk nee na sëñ bi nee na bi mu gënee doon tuut tànk sama waajur waajuram dafa daan yónni ci moom mi lu bëree bari nee na da ko daan yónni ci moom mi lu bëree bari moom xam na man xam naa sëñ bi nee na Cheikh Mbacke xam na moom it xam na te saa bu ma saan a ñëw nee na saa bu ma saan a ñëw kañ nga bëgg a dem rek la koy wax kañ nga bëgg a dem la koy wax nga xam ne sama xel dana dal ci ne li ma yónni moom saafaraw na nee na nga xam ne moom xelam day dal ci nii li mu ko yónni moom saafaraw na ba pare kon loolu nee na kon loolu man damaa taxaw fii seede ne. nee na mën naa taxaw fii seede ni. ab taalibe dëgg la. ab taalibe dëgg la. jullit dëgg la. jullit dëgg la. alhamdulilah man rek moo a seere. nee na man moom rek moo ko mën a seere. te dama xam lu leer la. nee na da cee xam lu leer. moom Cheikh Mbacke mii man xam na bu baax. nee na Cheikh Mbacke mii xam na ko bu baax. doo waxal kenn lu nekkul ci moom. doo waxal kenn lu nekkul ci moom. xalaatu ko ci àdduna. xalaatu ko ci àdduna. ndax lu mu ma defal rek. nee na ndax moom lu mu ko defal. ak fu mu ma mën a féete rek. ak mu ko mën a féete. sëñ Touba féete na ko lu ko féete na ko lu ko raw. féete na ma fu ko fuuf. féete na ko fu ko raw fuuf. kon nag nee na kon nag. jomm na maa taxaw. nee na kon nag jomm naa taxaw. di wax ci Cheikh Mbacke loo xam wax ci Cheikh loo xam ni. lu nekkul la lu nekkul la. ngir daraja. ngir daraja. nee na day moom xalaatul loolu. kon kay li koy ñaanal mooy. nee na moom dey li mu koy ñaanal mooy. mu yàgg ci kanam njaboot gi. mu yàgg ci kanam njaboot gi. fa mu bëgg a àgg ci lislaam. mu bëgg àgg ci lislaam. ak yoonu Serigne Touba wii. ak yoonu Serigne Touba wii. suñu borom eggale ko fa amiin ndax nee na ndax barke démb rek lañ doon ñaanal suñu waajur. barke démb rek doon ñaanal waajuram. mu ànd ak njaboot gu bari ñëw fa. mu ànd ak njaboot gu bari ñëw fa. gis na coono yam nam fa demee. gis na coono yam nam fa demee. damaa delluwaatoon. nee na daa delluwaatoon. ba ci ay jamono yu midi. ba ci ay jamono yi midi. la sama xel ne yar ci seex. la xelam ni yar ci seex. ma ne su ma génnoon réew mi dinaa jëlaat avion ñëw. nee na bu génnoon réew mi dina jëlaat avion ñëw. ndax. nee na ndax. da koo fasoon yéene fekke. da koo fasoon yéene fekke. ñaan ko yàlla. ñaan ko yàlla. kon alhamdulilah rabbil alamin di njaay Cheikh Thiam mii. nee na boo gisee mu wax loolu ci sunu baay ma jaañ. lépp mooma. lépp mooma. ndax Cheikh xamul way juram. ndax Cheikh xamul waay juram. Baye Ñang mii mooy waay juram. te it Serigne Touba bu ñu nee diw baax na. dañu naan ko ko yar. baay bii. dañ tey sunu baay bii. lépp ma sell. lépp ma sell. kon seex nii rek la mën a mel. kon seex nii rek la mën a mel. kon ñoo koy sant bu baax. nee na kon ñu ngi koy sant bu baax. te di ko ñaanal bu baaxa baax. mu wér lool. te yàgg fi lool. ndax sunu ndam la. ndax sunu ndam la. ndax sunu ndam la. kon sant nañu bu wér di sëriñ xaasim mee nag. di sëñ xaasim sëñ Cheikh xaasim Mbacke. di sëñ xaasim moom sëñ Cheikh xaasim. Cheikh mi moo ma yóbbuwoon ca waajuram. nee na Cheikh mi moo ko yóbbuwoon ca waajuram. mu jébbalu ca moom. mu jébbalu ca moom. ndax amoon na fu ma nekk. nee na ndax moom amoon na fu mu nekk. ba may tuut tànk. ba muy tuut tànk moom Njaga Ñaŋ mii. bëgg bëgg Cheikh mii. gu mu bëgg Cheikh mii. moo waral ma ne ko foo nekk. ma nee na moo waral mu ne ko foo nekk falaay nekk. kon ku santul man maa war a sant. nee na moom day kon ku santul moo war a sant. Serigne Cheikh Xaasim nag. sëriñ Cheikh Xaasim nag. ñun mënuñu koo fay. nee na day ñun mënuñu koo fay. rawatina man mii. nee na rawatina moom mii. du ma jóg ci di ko wax nag. du jóg ci di ko wax. ndax sëriñ bi dafa am bis. ndax sëriñ bi dafa am bis. mu ñëw ci seex Thiam mi naaju tàng jër. mu ñëw ci Cheikh Thiam mi naaju tàng jër. ni ko demal wool ma njaga. mu ñëw. seex mii woo ko ba mu ñëw bi mu ñëwee mi ngi fekk sëñ bi toog sol yére yu weex tàll mel ni sëriñ yére sëriñ xaas mii nee na mu ne ko ñëw nga mu ne ko amun ko demal nga jënd pono ak sàmbariyeer gaaw nee na mu ànd ak seex mii dem jënd pono bi ak sàmbariyeer bi ñëw indil sëriñ bi sëriñ bi ne ku tàllalal la yoxoom mu tàllal ko mu ñaanal ko nee na mu ne ko ndar laa jëm waaye loolu rek a ma fi taxan a jaar. nee na bi mu defee loolu. ñu jóge fii dem Ndakaaru. ñu jóge fii dem Ndakaaru. nee na moom. Sakho Thiam. Daouda Ndoye. Abdou Niang. moom la tuddee doomam Dieye Abdou Niang. nee na bi Yàlla dogalee ñu yor oto bi. nee na bi ñuy dem ba watu wetu Bargny. ci la oto bi def soog. ci la oto bi def soog. ñoom ñaar ñu am ñaar ñu ñoom ñaar ñu faatu. ñoom ñaar ñu faatu. ñoom ñaar ñu mucc ca. ñoom ñaar ñu mucc ca. kon loolee ndigal loolee. kon nee na loolee ndigal loolee. su ko deful woon su ko deful woon. mën naa kon moom jàpp na ne loola ca lay bokk. kon ku sant man war a gën a sant. nee kon ku sant moo war a gën a sant. waaye nag sëñ Cheikh Thiam mi laa gën a sant. waaye nee a ma moom mee mooy sunu wasila. nee moom mee mooy seen wasila. léeg-léeg mu tooñ ma ni ma gëj naa laa gis. nee na léeg mu tooñ ko ni ko gëj naa laa gis. ma mu ni ko gëjoo maa gis. ndax ki nga ma booleel mi ngi nii. ndax ki nga ma booleel mi ngi nii. te toujours ma gis ko. Touré. tudde naa ko doom. tudde na ko doom. sant rek a war nee na kon sant rek a ko war. kon li ñuy wax yow Cheikh Diop. nee na kon li ñuy wax. mooy Serigne Fallou Mbacke de. nee na Serigne Fallou Mbacke Mordoñ mi toog. moom mooy Cheikh Cheikh mooy moom. mooy Cheikh Cheikh mooy moom. kon nun mën a def du ñàkk ñu mën a tudd. nee na kon du ñu mën a ñàkk ñu ñu tudd. lu wér a wér la. ci lu wér. Serigne Fallou Bousso it. Serigne Fallou Bousso. mi ngi ci toogaay bi. mi ngi ci jataay bi. ñoo ngi koy sant di ko gërëm. ñi ngi koy sant di ko gërëm. muy Serigne Cheikh la ma waxoon rek. muy Serigne Cheikh la mu waxoon rek. moom sëñ Xaasim mii rek. moom sëñ Xaasim mii rek. ñoo ngi koy sant di ko gërëm. ñoo ngi koy sant di ko gërëm. sëñ Mahmadan Mbacke Massamba it. sëñ Mahmadan Mbacke Massamba. mooy mooy moom. mooy Cheikh mooy moom. sant nañ ko gërëm nañ ko. sant nañ ko gërëm nañ ko. Serigne Khadim Ndong it. Serigne Khadim Ndong. mi ngi moom Serigne Saliou Mbène. moom Serigne Saliou moom Mbène. njabootam gépp a ngi fi. njabootam gépp ñu ngi fi. Serigne Saliou Mbène a ngi nii toog. Serigne Saliou Mbène mi ngi nii toog. kon Serigne Mourtala it mi ngi fi. kon Serigne Mourtala tamit mi ngi fi. Serigne Dame Touré mi ngi fi. Serigne Dame Touré mi ngi fi. Serigne Khadim Touré mi ngi fi. Serigne Khadim Touré mi ngi fi. kon loolee ku mu doyul dara du la doy. nee na kon loolee ku mu doyul dara du la doy. njaboot gépp a ngi fi. njaboot gépp a ngi fi. kon sant nañu ñëpp. kon sant nañu ñëpp. tey it Serigne Saliou Touré. tey it Serigne Saliou Touré. koo fay. ñoom waa Thiès mënuñu koo fay. waa Thiès. ñoom waa Thiès. mënuñu koo fay. mënuñu koo fay. mos na maa ànd ak jëmm ji. nee na mos naa ànd ak Cheikh Mbacke Thiam mii. ñu toog ak moom. ñu toog ak moom. mu ni yéen waa Thiès day. mu ni yéen waa Thiès day. tànnu leen ma. tànnu leen ma. tànnu ma saa boppit ngir ñëw Thiès. tànnu ma saa boppit ngir ñëw Thiès. sëriñ bee ma tànnal boppam. sëriñ bee ma tànnal boppam. andi ma Thiès gii. andi ma Thiès gii. kon nag sëñ Cheikh. kon nag sëñ Cheikh. naa leen di gis. mu ne ko kon na leen di gis. kon loolu mooy wane ni. nee na kon loolu mooy wane ni. boole na leen ci boppam. boole na leen ci boppam. moom mii. moom mii di Baye Madiagne Niang. tudde na ko doom. tudde na ko doom. njabootam gépp. njabootam gépp. Serigne Saliou Touré leen jàngal. Serigne Saliou Touré moo leen jàngal. ba ci Serigne Allé mii. ba ci Serigne Allé mii. di doomi Cheikh Thiam mii. di doomi Serigne Cheikh mii. di royuwaay. di royuwaay. sëriñ bee ko jàngal. sëriñ bee ko jàngal. bi yàlla dogalee mu war a wut soxna. bi yàlla dogalee mu war a wut soxna. ñu ànd fa maak moom mii. ñu ànd fa moog seex Thiam mii tey. ba wax ko sëriñ bi. ba sëriñ bi. sëriñ bi danu ni. sëriñ bi dani. ci sama kër gii kat ci lañ koy defee. ci sama kër gii lañ koy defee. te yaakaar naa sëñ Sall te yaakaar naa ni sëriñ Sall Mbène. loolu na sëñ bi lu mu koy def lu dul njabootam. na lu ko sëriñ bi def lu dul njabootam. dafa xam ne aalami njabootam la. waaye daa xam ne aalami njabootam la. ak Alsaan ñoom Modou Kabir ñëpp fa la ñu jàngee. ak Modou Kabir Alsaan ñoom ñëpp fa la ñu jàngee. ci ci njaboot gi ku ci santul. nee na ku ci santul. sant rek a war. sant rek a war. Serigne Khadim Fall it. Serigne Khadim Fall. ñoo ngi koy sant bu baax a ñu ngi koy sant bu baax. imaam Aliou Diop it fi lay yendu. imaam Aliou Diop fi lay yendu. ñoo doon wàcce kaamil bi. ñoo doon wàcce kaamil bi. kon sant nañu ñëpp. kon sant nañu ñëpp. njabootu ngin ngi newit ñëpp ñëw nañu. njabootu ngin ngi ñëpp ñëw nañu. ndax muy sama yaay soxna Kare Thiam. muy soxna Xara Thiam di mag ci Cheikh Thiam. di mag ci Cheikh Thiam mii. di mag ci seex caam kenn jiitu ko kenn jiitu ko fi. kon sant war na. waaw kon bu ñu ko fàttee. waaw. soxna Kara Thiam soxna Kara Thiam waaw. bu ñu ko fàttee bu ñu ko fàttee. ndax li ëpp rek. ndax li ëpp. seex xam na moom xam na. seex xam na ko moom it xam na. bëgg gu mu bëgg seex. bëgg gu mu balu seex nekk ma nga ca. balu seex nekk ma nga ca. xaadim Thiam mii. xaadim Thiam mii. foofa la ne woon ca kër ga. di doomi seex Mbacke Thiam ju ndaw bokk ci ñu ndaw ñi moo ko yar. gënal ko njabootam mu gënal ko njabootam. seex mi du jóg ci di ko wax. seex mi du jóg ci di ko wax. ak yeneen ak yeneen. ak yeneen ak yeneen. kon sant nañu ñëpp. nee na kon sant nañu ñëpp. njabootu kuppantum. Birahim Thiam mi ngi fi. Birahim Thiam mi ngi fi. kon sant nañu ñëpp. kon sant nañu ñëpp. ajabani xayru ba in fi xaataba kulli wara xaabima أتابا لواجبا إن مغا أزدا مبيلا أنا فرادو ووكا والأمر ما خابا munta ñàkk ñu sant sunu waajur wi sëriñ alxaaji Madiagne Niang beral ko ak nuyoo sant sunu waajuru bopp Serigne Cheikh Thiam xaritu boroomam di sant it kilifa yi fi teew yépp di sant Serigne Saliou Touré Mbène ibnu Serigne Saliou ture ak Serigne Ahmadou Dame Koumba Touré moomu Serigne Saliou Touré ak sëriñ Khadim Touré boroom léegi léegi sëriñ Xaasim Mbàkke ñu ngi koy nuyu moom it bu baax mi fi jóge léegi waaye di beral ak cant ak nuyu goo xam ni gu kawe la gu yëkkatiku la jëmee ko ci sëriñ Fallou Mor Doj moom sëriñ Mor Doj mu sëñ Touba waajuram nga xam ni wu jigéen maam Thierno borom Daaru Muxti mooy waajuram mu doon ko jàpp baay seex lool mu mel ni bu nu tollee ci wàllu cant ñooñu doy na sëkk mu yóbbaale ñëpp rek ndax sëriñ seex Thiam dafa waxoon ni bis bi moom kenn rek la ci sant muy yàlla sunu borom subhanahu wa taala moom rek la ci sant keneen kuñ ci wax dafa doon beneen cant goo xam ni cantu man la yashkuru naasa la yashkurullaha lay doon ku santul nit du sant yàlla waaye bu dee xuus nag ci cant gi nga xam ni mooy nekk ci wara ak tawxid ci ginnaaw tawxid dëgg dëgg dëgg nag gi nga xam ne loolu moom faawu ab weñ gu sarax la gu duggee jóge ci leeru yàlla ba nga gal mbooleem loo loo lekkoon ba leer ga képp des ca ba nga xam ni tawxiid ak muqaddas ak taqdis mooy sellal képp moo nekk ci yow nga soog a dugg ci cant googu cant googu nag moom lañ fa sa waxtaanee donte wa liñ ci bind bari na te bi gàtt lool cant googu it mi ngi ciy njëkk a tàmbalee bi mu doonee ab jullit waaye doon taalibeb sëriñ tuuba waaye it dellu dëkkaat di gën a cant nag cërub sunu borom bi nga xam ne sunu borom moo ko ko may cërub sunu borom boobu lu yàgg la waaye dafa am lu ko yee ndax yàgg gi mi ngi tàmbalee ci sëriñ xaasim mii fi jóge nga xam ne waajuram mi nga xam ni kooku waajuram muy sëriñ xaas mag ma moo daan jàpp bàyyi seex mii saa su nekk di ko wax ni ko yow ñu ngi la tuddee reggal jël yow maanaam njëriñul sunu borom nga xam ni da ngay dem jëriñe fenn ba ba ñooña regg rek nga dem fa neen noonu la ko tuddee woon moo daan jëlit guro di ko yëy ba mu ba mu mokk ci biir gémmañam mu génne ko yàbbi ko daat ko koy seexal bàyyi seex mii sëñ seex mbàgga ci am waajuram wu jigéen ki ko jur moom la ñuy wax baasin baasin caam baasin moom nga xam ne moom waajuram bu góor di tudd Mouhamadou Thiam kon moom dafa mel dafa tukk dafa jóge ci baasin mimara baasin mimara te basin bi mara boo ko calculé fi mu lay delloowaat neuf la lay delloowaat neuf mooy suuf mooy turaab nga waa waajuram yu ko jur jëmmi boppam rek yu góor yi boo boomit mu Moussa lay tudd Thiam wu jigéen wa Mbayta Thiam Mbayta gise ñoom ñaar ñëpp mi ngi tàmbaliwaat fekkee mi ngi tàmbaliwaat baa bu jigéen bi bu góor bi tamit mi ngi tàmbaliwaat miim muy basin miim ba tey kon loolu mayug sunu boroom la waaye. bu nu sukkandikoo ci sëriñ bi ci orma ji nga xam ni moo nekk fii di Touba nga xam ni dafa wax ni yaa allahu yaa wahaabu yaa ala rafiq bi bi yow ma yawma anfaa tariq ni yàlla sunu borom yow mi nga xam ne yaay aji maye ji yow mi nga xam ne yaay aji kawe gën gi ab yow di àndaale gën gu ku képp kuy kawe yàggoon kawe képp ku kuy àndoo yow yàlla nga ànd ak nit nga ànd ak man moo ko gën mooy gën gi àndaale nag ma soob ci yoon wi gën a jariñu sëriñ Seex am yàlla sëñ Tuubaa tabb ko ci nag ma soob ci yoon wi gën a jariñu muy mu nekkoon ci beneen dimension boo xam ne mi ngi ci doon liggéeyal sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa moo ko ca balancé woon mooy ci wàllu alal mujj yi def liggéeyal sëñ Tuubaa ci façon bu ne ba nga xam ni këram boo musaa na ñëw da yaakaar ne ak màggal moo fa am ngir ay teraanga sëriñ Tuubaa bi mu mission boobu bi mu jeexee mu ne ko am na beneen mission boo xam ne anfa tariq la moo yoon wi gën a jariñu yoon wi gën a jariñu woowu moom laa lay tàggat moom wax na ni bi muy jaay këram di dajale ay million ngir gedd ko boobu amul benn bor bu koy sonal waaye boobu sarax li ko sarax muy weñuk yàlla muy leeru yàlla gi ko sorox moo ko gedd loolu lépp mu daw di wuti yàlla ci juróom-ñaari at yoo xam ni da ko tumuraanke nekk ci àll ak di ko woor ak di dugg ay xelwa yoo xam ni day ñaanal xalifa général wa ilaa xutbu buñ ko wax te du ci laaj dërëm saraxe sax du am lu mu ko génnee day mujj woowaat ñu génneel ko kon mu def loolu mooy anfaa tariq gi nga xam ni sëñ Abibu Diop moom sëñ Mouhamad Loob jëm jóob Lamine jóob dagganaa dafay ñëw toog fii nii bàyyi seex li tax ma xam ne an fa en tariq la dugg mooy yoon wi gën a jariñu mooy sëriñ Cheikh bu fekkoon ni dafa bàyyi mbirum àdduna bi jëm Dakaaru kon damay wax ni kii mbirum àdduna moo ko yitteel déggoo dégg-dégg bopp damay wax ni kon kii mbirum àdduna moo ko yitteel waaye ba mu bàyyee loolo ba mu ko bàyyee dafa dem Touba Touba goo nag Serigne Touba moo ko waxaata boobu daan bi xormatil mushaffail muqarrab bi wal ali wa bi wa shahri bi wala ali wa sahbi wa shahr rajabi yàlla sunu borom loolu lépp mu ko def an fa tariq googu ci daraje yi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy ki ñu nangu tuddam mooy ki ni jigéñal kon yàlla da koo xëcc ngir moom Serigne Cheikh li mu wax Cheikh Thiam yàlla da koo xëcc ci boppam ngir mu gën a jigéen ngir dëkkal ko ci ak sant yàlla ak tugg di tudd tur yàlla te loolu mooy sëñ Tuubaa ni li mu sanc dëkk wi mooy sant gi kenn rek moomu yàlla alhamdulilahi karimi dil minan ala ishtigalin bi furudin wa sunan daan yàlla moom lay sant yàlla mi nga xam ne mooy aji tedd mi wax ne borom xel leneen li ma koy sant du lenn nag du alal ju waaye lim ñu ma soxlaalee ma nekk ci farata ak sunna looloo jar sant yàlla dafa am benn nitu yàlla bu mag boo xam ni imaamu sa abul hasan Chazali daa mos ñëw ci moom benn taalibe rek la am. Abu Hasan Shazali Sëriñ Tuubaa wax na ni bokk na ci ay sëriñam bis mu ñëw ci Abdul Salaam ibnu Mashish moomu naan ko maa ngi sant yàlla de mbir ma ma doon lijjanti am naa ko Abdul Salaam ni ko looy sant yàlla mbirum àdduna mii nga xam ne day jeex képp lool ngay sant yàlla dan ni àdduna loo fi am jëru fi sant yàlla cërub yàlla moo jar a sant yàlla Serigne Cheikh Thiam nag nee na cërub yàlla bi muy am loolu santu yàlla cërub yàlla bii lay sant yàlla moo tax mu bi تعالى ملك العقل مبين محمد رسول الله ذلك الوحد لم يعلم يكن وحده لم يان بالذات واو محمد رسول الله زان لخو جاكو لا اله الا الله ملك الحق المبين محمد رسول الله ذلك وحده لم يان لا إله إلا الله ربي بما يزرون أزانا خات وجاه بجاه يبدأ لمن لله خلجا حمد لرب كريم لا شريك له وسري اليوم نورا ساتيا ملا محمد صلوات لاغي في أبد علي في اسمي كل بك لا أدعو إله الذي همت موائبه لجملة الخلق من يختار من بنا نجده جل أخواما وكارمني تكريم خادم وكن من لخل بنا رحمن هب للجميل خلقي رحمة من يغني عني سرما قرآن وقرا حكمة المستوى جل مكة حكمة المستوى مصطفى مصطفى حكمة المصطفى عن كل ما سدت وترحمي خلق يا من جد بدا يا مالك الملك يا من جلان خواد ارحم جميع الورى يا غادر